dans une marche hmm, du d'une démocratie majeure et je hmm. crois que comme Laye l'a di comme Serigne l'a dit euh, mu nekk des transitions démocratiques hein, d'évolution du, du, du pouvoir de manière démocratique c'est-à-dire le pouvoir qui qui quitte des mains pour aller dans d'autres mains et que c'est le peuple qui décide mooy li ñuy wax cette souveraineté du du du peuple demoon naa damay remercier ñi nga xam ne ñoo nekk ci protocole bi nga xamante ni boole nañ ma ci ñi nga xam ne invité nañ leen ak euh, yeneen personnalité yi nga xam ni boole nañ leen ci euh, mu nekk loo xamante ni euh, le spécial d'abord mbiru yàlla moo ni mel ah Abdoulaye mm-hmm. mbiru yàlla moo ni mel parce que d'abord Bassirou Diomaye daaw ci weeru koor gi lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko téye lañ ko arrêté bi ñu koy arrêté daaw di ko dugal ci kaso bi xamuñu woon ni que ñu ngi dugal président Sénégal ci kaso bi mm-hmm. bi ñu dugal ci kaso bi xamul woon ni sax moom dina nekk candidat mu nekk ci kaso bi li ñu ko toppee lu bëri mooy lu mu bindoon ci ci magistrat yi Abdoulaye. effectivement. outrage à magistrat. beaucoup de que li mu bindoon mu ngi nekkaat suma xel sax. loolu bokkoon na ci li indi woon jafe-jafe réew mi mooy ba sénégalais am semblant d'injustice. maanaam tey bi muy wax sax dafa jékki-jékki rek bi mu waxee ci wàllu justice rek ñëpp tàccu. donc ça veut dire que président Bassirou Diomaye Faye a été victime d'injustice boobu tey. mu nekk ci kaso bi ci weeru koor gi ñu def ko candidat ci weeru koor gi mu campagne ci weeru koor gi nekk président ci weeru koor gi wax ci weeru koor gi ñu taqal ko médaille bi ci weeru koor gi yàlla du yàlla du defantu de cest à nit ñi dañu am seeni programme d'accord am seeni plan fekk yàlla am na programme am plan donc pour man premier jàngat bi foofu beneen jàngat bi mhm. centre bi nu mu tudd Alassane centre international d'exposition d'Abdou Diouf. président Abdou Diouf la centre bi tudd président Macky Sall moo ko tabax mais président Bassirou Diomaye moo fa waate pour wax la rek Macky Sall moo ko tabax def na infrastructure gàcce ngaalaam am na lu am solo yu mu liggéey réew mi amel nañ ko njukkal ci lu bëri lu mu liggéey. moom moo tabax centre ab centre bi. dippee ko pour sargal Abdou juuf mhm. tey réew mi fa lañ daje tey. pour Bassirou Diomaye Wade pourtant ci centre boobu fa lañ doon dialogué fan yéene wala tey le vrai dialogue de la république c'était aujourd'hui symboliquement maintenant euh, comme li ñuy wax <laughs> li doon liñ doon jaaxal liñ doon jaaxal ci Sénégal mhm. mooy mu dévier ba wàcc yoon lan mooy wàcc yoon mooy nguur gi ñu joxante ko bal tàq wala sagar xeeñ parce que bokkul ci suñu tradition te li nekk suñu tradition mooy président bi ñëw conseil constitutionnel toog le conseil constitutionnel def na discours am man li ma retenir ci discours benn phrase la laa retenir mu ne à chaque fois que dëkk bi naroon na dugg ci benn crise institutionnelle le conseil constitutionnel a toujours voulu resté ci cadre boobu donc on peut dire que le conseil constitutionnel mm-hmm. joué na rôle am mm-hmm. moom ci ci ci seen ci seen discours bu am solo le discours du président Badji Camara dem naa xarit Karim Kurum xaq ma naan ko président mënoon na ko vocal rek parce que euh, bi ñuy xaar mooy Diomaye alors quand il vient mu def prestation de serment devant Dieu et devant la nation sénégalaise donc euh, mu prêter serment après bi mu paree mu revenir sur discours mais même ban type de discours lay indi d'abord mm-hmm. donc euh, parce que pour man pour une foofu mhm. euh, am na discours boo xam ni moom lañ doon xaar muy euh, boo xam ni discours euh, espérance discours boo xam ni dafa ancré at Sénégal ci ay valeurs sénégalaises am discours boo xam dafa féddali kóllëreem digganteem ak suñu ay dëkkandoo nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ci Afrique mais discours bi am na yeneen mooy mu gën a yitteel mooy la question de la souveraineté au niveau international même ci suñu wàllu diplomatie donc pour man mun ñu nekk président bu bu am audace ku nekk ndaw ku nekk jeune maintenant yaakaar bi foor na donc pour man symbole bi tey loolu la dans une république mooy yàgg naa toog fii grande gueule di ko wax. am papa Thione Seck yàlla na ko yàlla yërëm ma naan Thione da doon woy naan loo ayee njëkkee woo ko te doo ci mujj na ay bi rafet donc li li ñuy wone tey mooy les hommes passent et les institutions demeurent. Abdoulaye Wade dafa génnoon pale bi mag Sall ko gënge woon dugg ci palais bi. Diomaye Bassirou Diomaye moom moo gunge Macky Sall dugg ci pale bi après nag euh, le plus important qu'est-ce qu'on doit retenir mooy humilité boobu c'est une leçon d'humilité parce que ki yore nguur tey suba doo ko yore. Mhm. ki yorul nguur tey suba mun na ko yore. donc pour man le plus important. Mhm. Euh, nañu am euh, bale boobu Bassirou Diomaye Faye balem boobu mu yore. pour man c'est symbolique on doit balayer les mentalités. Mhm. balayer certains types de comportements. balee sax ba baleewaale sax yenn type de chroniqueur yeeg yu bëri war a bale moo bëri. d' dinañ ci ñëwaat amplement ak yow incha allah ci kanam tuuti. <laughs> d' accord non non c' est important c' est important yow itam nga ci gis par rapport ak li nga xamante ne moom la ne meeku tey euh, ci euh, prestation de serment bi. mais man dama dama koy rafetlu déjà à tout point de vue. parce que mhm. déjà dañu jóge fu metti ñëpp naan élection yi boobu dinañ fi fal président boo xamante ni du am légitimité dinañ ko contester mais pour la première fois bokk na ci rare président yoo xamante ni fal nañ ko te amul contestation donc ça veut dire que lu ñu doon wax yëpp am et je pense que aussi dans le discours du président conseil constitutionnel wax na ko que y pas véritablement de crise et je pense que loolu aussi loolu en fait li fa xew yëpp man dama jàpp ni dafa méngoog li nga xamante ni moom la Sénégalais yi doon gis doon dund moo tax bal sagal xeeñu lépp tegu ci yoon mu jaar ci yoon ba ñu am fin bii nii te fin bii nii la Sénégalais bi doon souhaité gis président la République sortant président bi dugg si ñu taxaw di waxtaan saafonte tout s'est passé dans les règles de l'art et pour un laps de temps et je pense que même le président l'a rappelé dans son discours rappelé na li nga xamante ne mooy la fameuse phrase dans les meilleurs délais <laughs> et donc wax na ne malgré tout on a tenu à faire les choses dans les meilleurs délais et dans les règles de l'art tey ku gis Bassirou Diomaye fay bi nga xamante ni moo defoon premier discours am bi ak bii tey sincèrement y a de quoi être fier de dafa jantal nag. gis nga njaab ah. bi mais da ngay da ngay <laughs> fier. li nga xamante ni mooy de l' est à dire la matière grise sénégalaise y a de quoi être fier. Ah parce que dañ ko wone en cinq jours. c'est-à-dire ku xool Bassirou il y a cela cinq jours a tey cest à amul benn faille le protocole est resté vraiment ça dafa jaar yoon quoi ça tu es fier d'être la république mais loolu la c'est léegi nag il faut gars yi xam ne aussi Bassirou léegi ci république bi ça incarne la république te ba fal uh-huh. falu ñu ñeneen ña doon xeex leneen ak leneen les sénégalais ont et le projet PASTEF maintenant on les attend à l'acte vraiment li xew rafetoon na quoi xeex bi neex na les gars ont porté le combat maintenant après les choses sérieuses vont commencer et ça a démarré aujourd'hui avec la prise de fonction je pense qu'aujourd'hui il faut lui laisser les coups de franche vraiment ñu focaliser sénégalais faluñu ay ay ay chroniqueur fii nangam non on a élu un homme pour pour diriger ce pays-là les enjeux sont énormes et je pense que discours bi ça day rentrer dans l'histoire comme discours bi nga xamante ne moom la euh, jusqu'à Bambaye waxoon fii ça mm-hmm. il a rappelé les fondamentaux les principes le contexte mm-hmm. nga xamante ne moom lañu moom la ñu nekk pétrole gaz bi nga xam ne ñu ngi fay dem souveraineté bi li nga xamante ne mooy wàllu euh, sécurité li nga xamante ne mooy surtout sax ak ndaw ñi par rapport mm-hmm. ak espoir bi nga xamante ne wax na ko Bassirou Diomaye Faye rappel na ko ne les jeunes fondent un un immense espoir pour toi rappelez-vous li nga xamante ne mooy xew ci géej gi combien de jeunes on a perdu en mer aujourd'hui je pense aujourd'hui vraiment mais moom it mu nangu ko avec beaucoup d'humilité beaucoup de respect et puis dañu gis ci biir affaire bi ça malgré la solennité gis nañu benn moment bi Aminata Mbengue Ndiaye amee problème de placé wu le président si boppam wàcce boppam dem loolu dafay wane dafa yaru. waaw la. voilà les valeurs yu xamante ça on les a perdus ci en l'espace d'une dizaine d'années et qu'on a jox les hommes dire lu waaye neex def cest dañu am ay fondements dañu am ay mag da koy jox cër gone jox magam cër cest dire ñu mettre les places les les les remettre les choses dans les dans les règles suñu la déggee ça le président de la République euh, Bassirou Diomaye Faye mu ngi wone li nga xamante ne peut-être mën nañuy wax ne moom la ñuy xaar ci moom euh, pour permettre à la jeunesse sénégalaise bi nga xamante ne peut-être mën nañ wax ne ne euh, porté nañ combat bi ba tey li am tey mooy mu nekk le président de la république ñoom itam ñu suivre son exemple moom itam mu def la même chose pour les permettre ñoom itam ñu xam lan mooy man dama jàpp nit boo ko gëmee mhm. boo ko gëmee li mu def danga nga war a roy ci loolu da ngay xool li baax ci li gën ci nga xam ne def na ko bul xool nit même sa ennemi sa bul xool li nga xamante moo bon ci moom yow xool li baax ci moom nga jël ko parce que loolu moo lay grandir loolu moo lay yóbbu kanam mhm. malheureusement on s'attarde sur des détails au Sénégal ba nga xamante dañuy passer à outre euh, ci li nga xam mooy je pense que aujourd'hui Bassirou vraiment ku ko xool mais vraiment il incarne. il était dans <laughs> en cinq jours dans le regard. même ci caméra yeeg yenn affaire discours lu regard friable yëpp tey véritablement il restait vraiment dans les loolu la ñu une belle image de notre démocratie comme ni ko si ñoom Cheikh rappelé ak euh, professeur Mbow.